Euh, xam naa ne Cheikh Diagne Gomis kontaan na ci mais mais Cheikh Niass. il mm. faut il faut. il faut il faut le saluer. Ouais, il faut gars yi xam ni. vraiment au Sénégal il y a un jeune homme euh, qui tourne autour de 40 ans. et qui gère justement l'une des euh, euh, euh, l'un des plus grands groupes de presse de ce pays. Mhm. un, un homme qui donne envie de rester donc à Walfadjri. dëgg la moom tamit maa ngi lay wax Cheikh Niass ñu ngi lay sant di lay gërëm. ndax euh, yow mi yaa ngi encouragé nit ñi pour ñu toog biir Walfadjri. te sama temps bi <laughs> non sama temps bi xam nga lu tax man solo xam nga lu tax xam nga man xam nga man moom moom daf ma ko fàttali xam nga lu tax xam nga man yoo xam yoo xam ne so yoo xam nga kan la ñuy nuyu. waaw waaw waaw nuyu boo amee. waaw non c'est que gis nga. kan lay nuyu kan lay nuyu. xoolal kan lay nuyu. Ah. Euh, Faye. déet yeggul de. moo ngi lim Faal. ñas ko Faye ak Faal ci kaw. ak madame Cissé. ñooñu ñoo jaral nuyu. déglu ma wax la. waaw ma wax la xoolal man ma nuyu sax Moustapha Diop sax moo ma gënal. xool xool waaw moo ma gënal sax. grand réalisateur mais mais mais naa la wax dara de. yow sa temps dina jeex pour être honnête. non non non. waaw monsieur kenn waxatu ko moom monsieur. ah kenn waxatu ko mais déet. ah non dëkk dafa am gi dafa am jiit. te jiit boobu. il donne envie de rester ici. man personnellement man c'est Cheikh Niass qui me donne envie de rester ici. man maa wax loolu. man damay wax man man damay wax parce que c'est un très poli. Cheikh Niass man du ma xool ci bët. Oh. moom du ma xool ci bët nii. alors que c'est le patron de ce de ce. il donne envie. bravo cher garçon et puis continuer yal na yàlla sàmm. te li nga def dañ ci am ndam. dañ continuer il faut le dire mais monsieur Faye ak monsieur Fall kenn waxatu ko. monsieur ñoom ñooy la garde la garde. Eh, la garde solide. c'est ah, d'une évidence. Mm-hmm. yow soo pulo waaw kontaan naa nag kontaan naa euh, xam nga man yii du sama jikko mais mais Fatima ma donne l'idée de de euh, di sant baayam di ko ñaan yàlla mu yegg firdawsi euh, que ce soit sa sa demeure éternelle waaw Cheikh Diane Gomis il est évident que ni moom yàgg naa ko tagg moom xam na li may xalaat ci moom donte dafa bari wax waxtaan <laughs> bi wasaana bu ko defee Aliou Sow nga waxtaan ak ñu li nga xam ne moo di clinique day bi nga xam ne son excellence monsieur Macky Sall bëgg na koo def euh, ci réew mi clean daal du clean oui <laughs> oui c'est vrai euh, cleaning day cleaning day deux ans euh, defuñu ko woon le prétexte c'était justement euh, cette pandémie justement de de de Covid 19 mais moi j'ai un problème Covid 19 une Covid 19 la ñuy wax wala un Covid ñaar yëpp ñaar yëpp lañ. waaw kon kon kon benn la euh, Covid 19 il faut ma adopté aussi benn <laughs> benn ban lañ ciy wax mais euh, pandémie bi nga xam ne mooy Covid 19 moo taxoon président Macky Sall toogoon un certain temps ñu dóoroon bu euh, comment dire suspendre woon justement ces activités qui sont liées au au nettoyage en général du peuple du peuple j'allais dire du du territoire sénégalais soi-disant parce que c'est pas évident quand même ñu ngi ko commencé woon Dakar dem ci lycée bi nga xam ne moom mooy Malamine sergent Malamine Badji aux Parcelles Assainies nii président joxe exemple foofu taxaw mu ne euh, dégg nga maam dina dina dina dina dina dina dina dina jàppale Abdoulaye Seydou Sow pour que euh, Sénégal euh, donc set wecc dégg naa sax ñu naan Sénégal pour mu mën a nekk comme Paris donc essayer de nettoyer mais il faut être euh, justement pragmatique dans dans dans dans nos réflexions euh, ku ne da ngay raxas euh, defar Sénégal il faut que nga commencer di raxas jikko yi d'abord bu fekkee ne da ngeen di raxas euh, tali yi raxas mbedd yi tey pour que le lendemain ça revient donc à la case départ et eh ben c'est pas la peine il faut que ñu commencer di waxtaan ak sénégalais yi nee naa leen ça m'est arrivé gis jigéen femme bu rafet toog ci otom bu rafet sol lu rafet sol ay lunettes yu rafet wàccee vitre am sànni canette yoroon ci suuf. dégg nga maam euh, ma xool ko di ko ko wax mu tëjaat tëjaat euh, euh, vitre am à la sax daf ma xeelu femme bi rafet na nduroon na ku jekk en apparence eh bien am na oto bu rafet et pourtant canette bi nee na moom du ko bàyyi ci otoom canette boobu laa wax mu naan ndaw si nee na moom du ko bàyyi ci otom ba yegg këram yaa ngi dégg pourtant gis naa ñaari xale ci ginnaaw xaw ma da leen yóbbu école ou je sais pas quoi mais xale yi loolu ñu teg seen bët gis seen yaay def ko ma koy ma koy wax mu may xeelu di ma vaalewu ma ci ci embouteillage yi mm-hmm. donc ça voudrait dire que c'était pas pour moi que je le faisais c'était justement pour essayer aussi ñu raxasal suñu bopp yi raxas suñu xel yi par rapport à ce qu'on peut appeler cleaning day cleaning day mooy set euh, raxasu raxasu bis bis ñu raxas mais cleaning day mais pourquoi day pourquoi pas annuel cleaning yëpp pourtant nañ ko def année bi bu ñuy raxas ñuy raxas année bi chaque jour boo yeewoo nga xam li nga war a def xam li nga war comportement bi nga war a am normalement cette dame que j'avais vue ci oto bi muy def jëfin boobu bu demee këram bu fekkee ne yàlla dimbali ko mu am tuuti xel war na xam ni man loolu ma wax loolu ma defoon dugg ci peut mun na xalaat ni sama yoon nekku ci waaye peut-être dama ko bëggoon am benn message bu ma ko lancé parce que dama ko ne soxna si man de bu dul woon embouteillage bi ma jël li su ma yeggee sama kër ma sànni ko ci ci ci poubelle bi mais daf ma xeelu dem yoonam te pourtant ñaari xaleem ñu ngi fa mm. rafet ba ay xale yu ndaw yu yu yu set wecc mm-hmm. ak ay ak seen i mm-hmm. mais xale yooyu teg nañ seen bët seen yaay ni wàcce na sa vitre de la voiture et eh bien ko sànni sànni sànni kaneen bi ci suuf donc jikko yooyu boo gisee ma joxe exemple boobu c'est parce que jikko sénégalais yi la ñu mm-hmm. dans le comportement dans les attitudes de tous les jours on peut pas permettre de cleaning day cleaning day Macky c'est vrai vous avez fait cleaning day bërki démba mais et alors et après qu'est-ce qui se passe repartez demal ci béréb bi nga dellu woon bërki nga xoolaat ko nga xaar ba semaine prochaine pour être gentil baal semaine prochaine defal une semaine nga delluwaat fa discrètement yow kese ak sa benn garde corps nga xool les entourages de fi ngeen raxasoon bu boobaa yow président de la république di nga sa yaakaar parce que di nga cleaning day bi ce n'est que de la euh, parole la def benn geste day nekk ci sa cerveau d'abord nga tàmm ko habitué ko sa boppa c'est comme ça qu'il faut faire aller au Rwanda aller dans les pays occidentaux Cheikh Diagne Gomis dafa am lu ma daloon sama jabar allemand la hmm? ma famille allemand xam nga Allemagne dafa set Allemagne dafa set xam nga ñoom de si am na benn jikko boo xam ne Allemagne ak Suisse ay ay ay jikko yoo xam ne ci wàllum set ak di di di di di sax mbalit yi man ma dem Malaisie ak moom je sais pas si vous euh, Malaisie. Mm-hmm. ñu tardé avion il faut mu wax lii xam nga tax ma koy wax ne. parce que dama bëgg gars yi comprendre ni euh, des fois il faut être exigeant dans les sanctions ñu tardé avion billets yi billets yi ce sont des billets boo pertee billet bi rek boo raté avion bi da ngay jëndaat beneen billet on était en retard war a dem def jël jël métro bi pour dem jëli avion bi pratiquement à cinq kilomètres ou 7 kilomètres boo raté métro boobu da ngay raté avion bi léegi nag ñu doon daw nag pressé di génn hôtel bi di daw yàkkamti bi ñuy daw di yàkkamti noonu ndekete moom sama ginnaaw mi ngi dafa dafa tiit xam naa ci yàkkamti bi si ngom bi mu nekkoon ci gémmiñam mu tufli ko mhm. ndekete am na ku ñu gis bi ñuy wàcc métro bi pour dem jëli métro bi eh ben foofu nag la ko waaj fekk ndekete am na ku ko topp ne ko il faut que nga fay dollars malaisiens oui mooy presque 1000 dollars malaisiens amuñu xaalis xaalis bi jeex na affaire de étudiant la on ne pas quoi faire te léegi ñu ne ko léegi il faut nga fay mu ne mënul fay ñu ne ko dañ lay jox une semaine pour nga fay mais bi ñu gisee carte d'identité muy carte d'identité allemande passeport allemand ñu ne ko yow doo génn dëkk bi tant que fayoo lii que boo génnee dootoo ñëwati. amuñu ay garantie di nga fay léegi nag ñun on est embêté avion baa ngi xaar métro baa ngi ñuy xaar te dañ ko nar a raté te bu ñu perte billet avion yi amatuñu xaalis pour jëndaat billet avion wala day nekk problème te amatuñu hôtel xaalis hôtel ba jeex na parce que jour boobu la waroon génn quest qui se passe bu loon yaay ji tey kon ñu yàqu deux temps quatre mouvement patron métro bi chef station bi la ñu mujjee yónnee xaalis bi ñooñu mën ñu bàyyi ñu dem ñu signal ñu ko pour ñu xam nga almaa yi ci wàllum dañ ci jub Mm-hmm. waaye singom bi la sànni singom bi rek la tuufli mm-hmm. ñu ne ko yow doo génn dëkk bi tant que fayoo mille mille bu fekkoon malaisienne la mm-hmm. nationalité boobu mun nañ ko may une semaine pour mu fay mais comme dafay génn loolu moo tax ñu ne ko bala ngaa génn dëkk bi il faut ñu fay ñu ne ma man pour ma dem ñoom ñu bàyyi ko fi ma man mënu ma def loolu donc finalement nii la mujjee pour wan ne rek sanction au Sénégal dama lay jox beneen exemple exemple bu mel nii te foofu à la CAN voilà ñun journalistes ñu ñëw dugg ci sunu euh, ci euh, ci taxi bi ñuy dem euh, boobu jënd nañu ku nekk jënd na ku nekk jënd na ay lekk quoi. Mm-hmm. ci kii bi nii ci kayit bi. Mm-hmm. ñu dugg ci oto bi di lekk ñu ngi lekk de ci oto bi di ah ñu ngi dem rek ba saa kenn kenn ci journaliste yi jël kayit bi rek sànnit mm-hmm. kii bi dafa kii taximan dafa freiné. ñu ne ko lan la bi sax mu ne non non ma dem tànk yow demoo. for waa for la le. à ah. pour wax pour dëggal kii li mu wax xool fii la amee Afrique loolu xam lu ma bëgg a wax foofu euh, kii Aliou Sow mm. xam nga problème bi yëpp lenn la. yow sanction yooyu ngay wax il faut sanctionner. Mm-hmm. xam nga lan la uy ma dama ne. gis nga dëgg la dëkk bi ñun ñu ñoo ko salteel nañu waxante dëgg. Mm. mooy jikko bi. parce que nit ki da ngay toog ba si ak yow nga jël dara di sànni suuf waaye bu ñu la sanctionné xam nga des fois damay gis ba saa ñu ne. ci mbir ñu ne euh, ama euh, kii euh, xaw ma interdit du xaw ma durine. Ah. de na ama. yooyu yëpp yooyu ay waxu tappale la. mais coach loolu il faut que l'état coach moo war a jël ay disposition weesuwul gis nga taximaan yi dañoo sonn Sénégal toilette publique amu fi qu'on la vérité amu fi taximaan yi bu 18 jotee rendez-vous la ñuy joxante ci miiru péage bi ku ne di ko fa maye. xam nga lan la wax nañu waxante dëgg xam booy seet na fekk nga joxe. Mm-hmm. Euh, yenn yi nga xam ne dafay. moom laa lay wax mais il faut sanctionner boo yow yow yow boo demee fële di koy def mm-hmm. su comme ni Aliou Sow wax. Euh, sanction boobu ñu leen def xam nga xam nga par force da ngay fay. Mhm. xam nga ñoom bu ñu fay loon est-ce que nañ dem léegi tey jii Aliou Sow na delluwaat foofu si ngoom lu ko si ngoom bi sonal sonal du ko fa teg. du ko fa teg xam na. mais Cheikh ñun dañu am lu ñu yàq déjà mooy dañ tàmm di wax naan medd medd mbuur la. voilà medd mbuur da ngay wax nit ki ñëw tuur ndox. Mhm. nga def mu ne la waaw medd bi moom gis fii. à la fin tu es mhm. daal. nga suba suba nee naa la semaine prochaine. Mhm. Macky Sall man maa la wax loolu dem fa. présent dem fa dem fa discrètement am na la benn gàddu ko nga dem fa doxantu fa trois heures du matin nga xoolaat entourage bi nga bi nga fi nga jaaroon ba xam yow di nga fa fekk li nga fa fekkoon boo ñëwee boo fa demee boo fa fekkee li nga fekkoon ñëwul nee ma tuug xaj. mais c'est ça. mais ce n'est pas vrai ce n'est pas possible parce que xam lu tax suñu jikko yi Youssou da koy woy ah. seetooy seet seet ci sa xel seet ci sa àndandoo seet ci say dëkkandoo seet ci say yaram machin et tout ce que vous voulez mais affaire bi c'est que du blabla Youssou l'a chanté il y a 30 ans mais les Sénégalais sont toujours pareils ils sont sales sa mais xoolal su kër suñu biir suñu biir kër yi nii c'est tout bien ah dañu kii li ci biti et puis dañu individualiste naan yëf bi suñu yëf la loolu lañuy wax dañu naan yëf bi yëf bi ñun suñu yëf la ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom quoi fi ñu dëkk baax na waaye ci biti ñëpp a ko bokk mooy mbedd buur bi ngay wax suñu yoon nekku ci c'est de c'est c'est un benn espèce u manque de de de générosité la de de pour ñoom seen kër rek xoolal demal ay Wakaam yi wala ay Almadies da ngay gis ay kër yu rafet mais jaaral ci diggante kër yi nga xool xam nga gars yi environnement général nii gars yi yooyu intéressé leen seen bopp kese y' a pas plus individualiste qu'un africain y' a pas plus individualiste y' a pas plus égoïste parce que égoïsme tolluwu lu dul man sama kër kese doy na ma li ci biti sama yoon nekk ci na mhm. sama kër set kese mhm. seen kër yi dañu am ay bon ñu leen di menacer ak ay boy ñu leen di menacer di leen seen yëf mais pourtant ci biti faalewuñ ko ñoom nañu tëju rek seen mbir jëflante di di di di di di di seetante di di jëfante ci lu baax yooyu yëpp façon yi set la te set boobu amul ci réew mi parce que fii on a que de la gueule voilà ça ne marche pas dans ce voilà Alioune li nga wax ci cleaning day bi ah, am na solo bu ci mel ni rek euh, ñu Sénégal dañuy def li nga xam moom mooy seetu ginaar. dañuy seet ci biir te duñu set li nga xam ne moom moo di ci bitti. bu ñu génnee foofu rek dañoo bëggoon nga waxtaan ki nga xam ne moo di Abdoulaye Diouf saar ak euh, meeting bi passé comment ça s'est passé. oui c'est vrai Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr veut être donc justement avec sa coalition Benno Bokk Yaakaar dafa bëgg a nekk euh, maire u Dakar Abdoulaye Diouf Sarr est actuellement maire de la commune donc de Yoff rappelez que mhm. élection yi passé bi Benno bi euh, euh, Taxawu Dakar raflé toutes justement pratiquement les communes de Dakar et eh ben pratiquement moom kese moom Abdoulaye Diouf Sarr pratiquement moom moo amoon ndam au niveau de la commune de Yoff mais il se trouve que depuis qu'il est là-bas Sall a été donc ministre euh, plusieurs fois aujourd'hui bon évidemment aménagement du territoire tout ce que vous voulez mais léegi ministre de la santé la et cetera euh, décidé nañu ñoom ci seen biir ak Benno Bokk Yaakaar ni euh, dañ koy jiital justement pour que mu nekk maire de Dakar prochainement aux côtés du président Macky Sall pour mën a téye réew mi mais est-ce que véritablement Abdoulaye Diouf Sarr pourrait gagner cette mairie-là parce que finalement ñëpp a ngi taxaw Barthélémy Dias est en face Soham Wardini est à côté Abdoulaye Diouf a fait beaucoup de promesses mais en attendant boo demee au niveau de la commune de Yoff si ngay xam ni ñii ils ne font que des promesses mais évidemment un grand homme politique Jacques Chirac disait euh, les euh, euh, justement promesses euh, n'engagent que ceux justement qui y croient donc forcément mooy promesse lépp lu ñu leen promettre mi ngi leen engagé yéen yéen ñi koy gëm yéen ñi nga xam ne ay dof ngeen yéen sénégalais yi leen dara chose est sûre donc Abdoulaye Diouf boo demee tey ji nii ak promesse yi mu def yëpp boo demee tey ji nii au niveau de la commune de Yoff nga dem Philippe Maguilène Senghor di nga xam ne ci biir boo demee ci ci ci fi maladie di tëdd man j'ai les photos da ngay da ngay am gàcce. baal leen bu leen ko yooyu mënoo di ko gis ba pare kooku ñëw taxaw ne ne moom bu ñekkee maire Dakar dina la defal lu bari moi je ne parle pas pour personne moi je ne fais que dire des choses yoo xam ne dañ ci teg suñu bët sénégalais xam ko xam ne ñii seen jikko yi promesse kese la mais finalement tekkiwuñu dara ils ne sont pas capables ils ne seront pas capables de gérer ils veulent faire Dakar comme Paris mais vous rêvez yéen xam ngeen Paris yéen lan ngeen pas capable

Vous savez pourquoi je dis hmm, nga engagé. vous savez pourquoi. Hmm. dama wax loolu parce que am na yoo xam ne ci njëlbeen ga ngay gis ngay gis ndax dina baax wala du baax. xam nga dafa benn femme boo xam ne mi ngi tudd Soham Wardini ndaw soosu dafa nekkoon ci taxawu Dakar jàppale. dégg nga maam taxaw Dakar nekk numéro 2 ci ginnaw xalifa Sall yàlla def Khalifa Sall am ay gàllankoor am ay jafe-jafe ci àdduna politique et eh mu remplacer ko nekk ci am di ko remplacer ba jour bi nga xam ne moom ñu teg ko maire officiellement parce que nee nañu euh, Khalifa Sall mënatul nekk maire. finalement ndaw soosu dem ba accomplir mandat ba mandat bi jeex ba ay élection amaat ñu ne ko yow demal toogee na la yow tekkeetoo dara yow remplaçante kese nga doon doon moo tax bi ma déggee euh, euh, Soham wax di ne man yeewi askan wi yeewi na ma donc man mun naa mun naa demal sama bopp te ñun dañu waxante woon mooy li may wax rek ci njëlbeen ñun dañu waxante woon bépp buy ne bépp maire boo xam ne yaa ngi fi ci sa position bokk taxaw Dakar bu élection yi ñëwaatee dañ lay delloowaat si sa place dañ lay renouveler waat sa mandat ñëpp jàppale ndoo la pourtant ils n'ont pas respecté ils ont respecté les autres mais ils ont pensé que Soham El Wardini n'était pas capable c'est aujourd'hui que Soham El Wardini n'est pas capable yow Khalifa Sall aujourd'hui tey mun nga ne Soham El Wardini capableul démb capable loolu na parce que mi nekkoon sa ñaareel bi moom mooy da ngeen waxante woon yéen ci seen biir waaye yeewi askan wi que ni képp maire boo xam ne yeewi askan wi la bokk dañ koy jàppale waat pour mu renouveler waat son mandat pourtant vous ne l'avez pas respecté pour des raisons politico-stratégiques je trouve que c'est dégueulasse parce que ci loolu rek ngeen di dund yéen ñëpp sans exception parce que loolu ngeen loolu mooy seen intérêt l'essentiel d'être présent am ay ndombol tànk li des Mm-hmm. xam ngeen ni yéen xam ngeen ni dëkk bi du dox. ah loolu mënul nekk sax mais Aliou Sow. Euh, côté boobu côté boobu munu euh, duma ci d'accord parce que euh, problème mu Soham Wardini ak euh, euh, Khalifa Sall mm -hmm. entre ñoom la ndax bu ñu xoolee moom xalifa Sall Barthélemy Dias taxawal na ko fu ne ci bi muy nekk nungu sin mm-hmm. déjà tey boo xoolee maire moo Sacré-Cœur ku nekk ñaan nga yàlla dëkk fa ci li ñuy doxee Euh, jumaa yi euh, don yi ñuy def lu ne ñu ngi koy def permis de conduire lépp ñu ngi xam ne mu ngi def loo xam ne mi ngi jàppale jeunes yi bu fekkee ànd na dama euh, dama naan bu fekkee moom Barthélemy Diaz Khalifa Sall jàppale na ko ñu jëm mairie de Dakar dama naan loolu yoon la. léegi man bu tax ma lay tontu ci wax li ngay wax ni xel la xëy na c'est vrai mais moi je parle de liggéey bu ñu koy commencer ci njëlbeen. mi ngi def dépendre dafa am yoo xam ne. ni ñu koy tegee. ci lay fonctionner ba jusqu'à terme. ni ñuy tegee ni ñuy tegee maire bi maire bi ni muy ñëwee mais on l'avait dit avec Khalifa Sall Khalifa Sall bu jaaroon bu jaaraloon mbir yi yoon moom ak moom ak Macky Sall kenn du ko dàq parce que ay intérêt personnel toujours la jiital au départ mënuñu teg Soham Wardini ñu ne moom la bu affaire ay jàppalante ci prison wala yu demee affaire u jàppalante bu may wax Soham Wardini jàppalante ci liggéey bi la Soham Wardini bu nekkoon première di ko gérer normalement kon bu fekkee seen biir question de principe la wax. Mhm. ak parole donnée. Mhm. Mhm. dañu ne ñoom seen biir ñoom bu ñu taxawee benn affaire nañ ko def mooy képp ku nekk maire Yewwi Askan Wi dinañ dinañ la dinañ la dinañ la renouveler atal sa mandat ñëpp topp sa ginnaaw jàppale la. waaw loolu lu tax ko ci sonn waat. léegi dëgg la euh, Yewwi Askan Wi xaaral rek ma départager leen Fatima ah, xam na saxam waa bi ni sénégalais di cause disabilité waa Dakar mi ñu ko miin mooy xam nga da ngay dem jegewul askan wi maanaam ci ni sénégalais koy wax voilà euh, ñu dem euh, Aline Sow euh, gis nañ ni li nga xam ne ni li mu indi am na solo loola ah, am na solo lool na affaire Abdoulaye Diouf Sarr bi ma dem ci ki nga xam ne moom moo di Gomis borom rubrique sport